yi nga xam ne da leen doon yekkanaa yekkataan hmm. ci ay procès verbaux la booy wax am na ci ñaari ñoo xamante ne la ñu dëkk hmm. presque ay seize ans quinze ans ah. hmm. dalay woo nga ñëw mu naan dalay maase di dawal loxo ba am fu muy maase nga ne ko fii bokk ci mu ne na non lii yëpp problème mu santé moom lépp la lépp lépp <laughs> c'est c'est grave c'est grave kon man daal moom noonu lañ leen naxtaanee ba ba ba yegg ci ñoom. waaw léegi da di invité. léegi bu dee bu dee ñoom seen kilifa yi tubaab yi. waaw dañuy ñëw ci kaw. Hmm. wax sunu ay kilifa yéen xam nga mbir moom la ko war a bàyyi c'est normal nit day libre def lu ko neex. ñeneen ña ñëw di ci sunu sport ak sunu hmm. yeneen di dox ci suuf mais lu tax ñuy dénkaane kaw di da mais c'est mais lu tax ñuy dénkaane sax ñun suñu ay kii yu mel noonu. ah déedéet lii Dakar Sacré-Cœur dafa mel ni sénégalais bu liggéey États-Unis wala France rek. waaw waaye mani sawaay dama ne équipe nationale baa ngi nii. Hmm. am na benn club bu nekk France suñu docteur bi foofu la jóge ah ay médecins ay experts qualifiés ñooy génn université. dëgg la mais ñun dañoo mel ni comme complexe ci xonk nopp yi nga xam ne moom. seenu mbaax lu yàlla xam doy na. wallaay. Hmm. Eh? suñu équipe nationale bii laa la wax équipe nationale Sénégal bii. xonk nopp yooyu nekk ci. dëgg di fayee ko ay million yu dul jeex. Hmm. ay professeurs. ay médecins ñi ngi génn ci suñu université yii. nekk fi di sommer lu tax duñu leen jël. wallaay wallaay yi ay complexe lañ quoi. wallaay wallaay noonu noonu Fesdel ak Naar bu ñu paree ñoom la ñuy jël. te ku fay xam nga kii la ma jaaxal. waaw waaw faculté médecine wu Sénégal. Mhm. à université Cheikh Anta Diop. ak IFAN. waaw Afrique ku bëgg a jóg recherche def recherche ci Afrique. da ñëw IFAN. Mhm. médecine. sunu mbokk Maroc ak Tunisie ak ma ñeneen ñooñu ñu ci ëpp. ba ci Algérie médecine la ñuy jàngee. mais lu ma jaaxal. lu tax bu ñu paree Sénégal ñun ñuy dem di fajoo ay Maroc. amoo matériel. waaw parce que dafa yomb explication. merci hmm. yow yaa ñoom yow yaa leen di jàngat. jàngal sa biir université. lu doy waar la soo fajoo. nga dem fekke leen ñoom ñoo lay faj. lu doy waar la parce que amoo matériel amoo plateau. loolu lu doy waar la. loo ci xamul fii la ñuy testé de. fii te fii la ñuy testé. fii la ñuy testé di néewal nee ñi. dëgg la di mar sérieusement. dëgg la fii Abdoulaye Daouda Diallo ngi nii. voilà ak Amadou Hott. ñoom ñaar de yi ñaari xulóowaale. waaw ñaari financiers yi daal sa waay mooy loolu. scandale a ngi nii nag ci paiement wu indemnité yi. 450 millions nee nañ moom la sàcc. ci yàlla. Mohamed Gueye oustaz bi ak Olivier Sylvain fanaan nañ seen guddi gu njëkk ca Rebeuss ñoom ñaar ñëpp li ñu leen di toppee mooy. yoo xam ni foccee ko guñ ci nen ay mineur acca xoola bigee rek ni toogee mel ni ku nekk <laughs> laas yéene kaa ñëw ñun ci daganal wàllum góor jigéen ci réew mi euh. Macky Sall dossier góor jigéen yi Macky kenn mënu ko ci téye Macky Messi la ci wala Cristiano Ronaldo mm. intraitable sur la question mm. te xoolal kenn du ko ci tardeel nag kenn du ko ci tardeel ñëwal nee na góor jigéen ci mim réew du fi am mm. source a moom ñëw ak ñun ci colonel sénégalais bii nga xam ne dañu koy toppee 16 millions d'euros benn homme d'affaires français Satlayfa moo ko topp. 16 millions d'euros. waa lii moom loolu presque presque presque 12 euh, 13 milliards la. man nag milliard li ma ko teg est-ce que milliard man juumuma ci sama compte. Ah. ñu ne milliard mooy 1. man fi mu ne nii dama dama dama gërëm. 1000 millions la. ah milliard. waaw waaw. waaw est nit ñi xam nañ luy milliard. Eh. da ngay da ngay dégg naa kilifa yi ne da ngay tàllalee Dakar billet dix mille teg benn teg benn boo yeggee Louga pare ah euh, sama doom ji foog naa ni benn jour war nañ jël soit benn place bu historique fii ci Sénégal. waaw ñu woo ñëpp wan leen li nga xamante ne mooy milliard. pour nit ñi bu ñu sàccatee ñu xam ampleur. sàcc bi non xaw ma milliard yaay man xaw ma milliard de. <laughs> yaay man xaw ma milliard de. man daal man daal maa ngi commencé douter de man man li ma foogoon milliard mooy mille millions damaa <laughs> loolu du milliard milliard yeegul foofu waaw kay gis nga front social bi nag fi mu nekk nii grève yi taxar naa si maam booy jaaw ci ñoom la bokk de. mais moom jàpp na ne am na lenn loo xam ne waroon nañ koo def te defuñu ko. ils ont failli. lu jëm ci wàllum politique nag nee na ku ñeme. c'est honnête. ko wóolu sa ndigg jógal yëngu. dëgg la <laughs> yéen ñooñu toog. ah ata yéen ñooñu ba mu des yaay booy. <laughs> la ku wóolu sa ndigg jógal yëngu. ana bi gi. ndiggu xale laa yor maam booy laa yor. ah moom nga yor. waaw ñun de doom suñuy ndigg day bëgg a yàgg. <laughs> moom ay ndiggu paa la ñu yor. dégg Mame Boye Diao daal nee na képp ku wóolu boppam daal defal ni président Macky Sall. mais mais Ahmed loolu paa la ah? tey jii nii nguur gi bu ñuy commencé di nangu. waaw ah. ah. am na fenn fu sooke. waaw parce que daa mosuñoo nangu. Eh. mais bu ñuy commencé di nangu am na lu am na lu xew. indépendance moo amul ci biir parti moo tax li jël Moustapha Diakhaté dal ko Mame Boye moom bu continuer loolu. ah. kii moo njëkk a pipp ci Macky. est-ce que dina ko jig très bien. kii moo njëkk a jël lettre bind Macky ne ko danga may fal. Ah. parce que li ma daj ci yow gars yi dajuñu ko. ah après 2019 yi. gis nga. kii kii kii kii day dafa am fulla moom acca eh. ana ko ci topp kana góor jigéen ñi góor jigéen acca eh. daganal ko ci mim réew ginnaaw Barack Obama nag Macky Sall moom téyeeti ne premier ministre canadien bi ci ruq da koo poñe de hmm. coincé ko xamal ko ne ko daganal ngóor jigéen ci mim réew mënta ne ñun suñu société bee ko nanguwul te nag dëgg-dëgg fa yàlla suñuy loi daal ni ñuy doxee daal ñun daal nous sommes à l'aise monsieur le premier ministre <laughs> désolé dégg waa Jamra nag dugg nañ ci parce que euh, Mame Matar Gueye ak ñi mu àndal nee nañu kenn du légaliser ngóor jigéen ci mim réew incha allah daja hmm. teg hmm. waaw kay xam naa ne nag moom fi mu nekk nii moom takkum jabar ga ca Touba moom. <laughs> buñ ko légalisé fii de Ahmed est-ce que kon réew mi du mel ni euh, quelques années en arrière ni xale yu góor yi doon def fi. lan. réew mi. Ah. xale góor yi dañ daan gis ko ku yore saagu jigéen wala doxin doxinu jigéen. Eh. dañ doon wàcc. yooyu nag wàññeeku na fi. waaw ah. góor da ngay def yëfu góor. waaw ah. waaw góor na baat bi dëgër doxin bi. <laughs> man de sama baat bi lu ma ko mën a xuural xuural ko. <laughs> bisimilah. critique yéen président Macky Sall ngi nii. Euh. ak sëñ bi doo ba léegi daa mel ni ko sotti démb glace moom daal démb daal Macky Sall ngir bañ sax ay jiixi jaxaa am ci olof la ko dóor ngir la masse la majorité des sénégalais. bu olof moom la mu cax leer na nañ. waaw bu tubaab bi moom bu tubaab bi la xaw kii bu tubaab bi la defar. ah da koo defar. dafa bi wax olof dafa leer nañ waaye tubaab bi da ko xaw a defar. nan di tëll. tonton rek <laughs> nan di tey. tonton tonton Fatick Fatick tonton mi def léppam Ndakaaru. wallaay. dégg nga. jeex na tàkk suba teel a. Eh, am naa yóbbante ah. Hmm. waaw. Euh, sportif yi. waaw nee nañ da leen di fàtte léegle ci say revue wax nañ ma ko de. dañ may. nee na da leen di fàtte ci say revue de presse. ëpp naa def ñiy def sport. waaw waaw waaw waaw wax nañ ko de. mais championnat bi tamit dañoo war a gën a góorgóorlu quoi. <laughs> te moom seen un grand sportif ah. <laughs> waaw waaw de haut niveau. Ahmed macha allah. soo gisee macha allah tàng nu mu taxawee rek nga xam. waay ma ni mais mais Ahmed. Ah sa ah, waay euh. est-ce que xam nga ni yow mën nga dimbali sport bi championnat Sénégal. Pa Assane championnat Sénégal nañ jël société nationale yi forcé leen. Macky bu ko bëggoon ba léegi waa Orange dañuy am équipe. Ahmed Orange am nañu équipe. Expresso dafa war a am équipe. non xaalisu Orange biy dem ah. France nañ ci jël ne ko hôpitaux yeeg football beeg yëpp jox ci nangam. waaye ma ni ku ne na jël benn équipe wax ji jeex. société bu ne. Hmm. dafa war a jël benn équipe wax ji jeex. loolu mooy dëgg Sonacos am nañu. or am nañu. Mm-hmm. mais kay mais ay orange yi da nga leen di forcer par force ñu jël ay équipe wala ñaari équipe wax ci jeex mais football professionnel bi ñu ci demee ak léegi mat na dix ans ñu jógee amateur nest pas. mais mm-hmm. doxul ah? bi joueur Sénégal bu ñu la waxee ne la am na joueur yu fayeeku fukki junni soixante quinze mille doo ko gëm. ay bagages yi ñuy fay ay trente mille. wallaay mm-hmm. wallaay dañu waxante dëgg. wallaay ñun dañoo fooyee football xam naa sport boobu noonu na ah, Ahmed. oui incrimine Issa Ayatou. ah président lay wax nii. waaw xam nga. Ahmad Ahmad. waaw moom xam nga moom. moo remplacé Issa moom dafa ñëw rek coow li mbambali topp ko. bi léegi nag lépp nag la bëgg a jël nag xëpp ko ci kaw Issa Hayatou. Hmm. rapport yi kay fépp lañu ñu nekk. <laughs> rapport yi rapport yu Cour des comptes ak OFNAC neewul Sénégal rek de. rapport yaa ngi fépp adduna bi ñëpp a ngay rapport gisoo IAF. Hmm. rapport yaa ngay toj athlétisme ga. rapport yi FIFA. FIFA yaa ngi fàttaliku. c'est la wallaay Michel Platini. wallaay hmm. rapport yi daal a ngi nii. mais tey si suba maa ngi lay dégg nga ne am na benn uh, yéenekaay bu naan uh, góor góor dafa manqué. ana ana mu. waaw ban ana exclusif. exclusif la ma tëjee ko. Ah. ma wax la ñaata góor a des ci kaw suuf te amaguñu. ak jigéen ñi. ëpp na. ana exclusif. mi ngi nii. réduire ma ko waaw kay à sa plus simple expression. <laughs> comme l'avait promis tonton à l'opposition et il a réussi alhamdulilah. il a réduit l'opposition à sa plus simple expression. qui lui Macky. c'était devant moi à Kaffrine. <laughs> notre fameuse euh, conférence de presse là waaw boobu la. Ah. boobu laa doon defanteeg moom mu teg ma sama ànd. dama yow mi tas transhumant yi transhumant nga. foo nekkoon avant nga fay ñëw Macky nga xam ne defante rek lay def. léegi góor moo ñàkk. waxuma Sénégal dong de ci àddina te lii way mbootaayu xeet yi ci moom ñoo ko wax Nations Unies grave ñu ngi alerter jigéen ñi dégg yaay nee am na ah un milliard hmm? un milliard de góor yoo xam ni sëy nañ ba pare un milliard yi sëy ba pare yaay na de yaay loolu war nga cee wax de en tant que économiste